avocat yooyu nee nañ nag mbir moomu sax dañ ko weesu ndax délai bi ñu mayoon ñi ngir ñu bindu ci liste électorale yi moom euh, romb nañ ko ci aju ci li nga xam ne rek mooy cambiste wala sax xale bi nga xam ne rek da doon yëngu ci wàllu weccee xaalis turam di Boubacar Diallo ñi ko faatoon nag teg nañ leen loxo waa gendarmerie nationale ñoo def li ni mel foofee ca Yoff nag askan waa ngi rafetlu li nga xam ne rek moo bàyyeekoo ci boobule dogal journée mondiale des pêcheurs artisanaux yi nga xam ne rek ñooy yëngu ci lépp loo xam ne rek dafa laal wàllu napp gi fii ci Sénégal te ñoom duñu jëfandikoo xarala yu yees yi ñoom nag ñoo doon màggal journée boobu foofu te ca Saint-Louis ñu ne rek euh, sukkandiku nañ ci bile xew-xew ngir àdduwaat ci lépp lu jëm ci licence de pêche yi seen diggante ak waa Mauritanie ñuy sàkku rek ci kilifa yi ñu leeral li ni mel ndax nee na parewuñu rek ngir débarquer seeni ay jën foofee ca njaago ñu wax ci njàng meek njàngale bi étudiants yi nga xam ne rek. ñoo amoon yéen a jàngi France faw ñu taaxirlu wala ñu yokk seen koppar ndaxte réew France moom dafa yokk li nga xam ne rek mooy inscription yi ci wàllu licence boo doon fay téeméer wala sax ñaar fukki ju nekk ñaari junne ak lu tegal jamono ji moom faw nga eh, yëkkati million ak eh, lu xaw a jege. Euh, daanaka 500 euh, 000 francs boo bëggee bind foofu ci wàllu master nag daanaka 2 millions rek nga war a yëkkati ngir mën a bind foofee ca France ba tax na rek ndongo yi di sàkku ci kilifa yi ñu euh, wax ak réew France mu yëkkati boobule dogal mbokk yi lii mooy ponk yi boo leen taaxirloo tuuti ñu faram-fàcce. salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaaru marax ni ñu ko doon waxee rek doomu Abdoulaye waat bi di Karim Wade moom foow mu fay li nga xam ne loole la nguuru Sénégal di ko toppee di cent téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñett su bañee am jafe-jafe ak nguuru Sénégal lool nag avocat yi layoon nguuru Sénégal ñoo xam ne li ni mel. ñu ne lépp lu aju ci wàllu candidature moom foow doomu Abdoulaye waat bi mën a xaarandi wala sax li nga xam ne rek moo nekkoon mëbëtam dootul mën a antu. ndax euh, romb nañ lépp lu aju ci wàllu inscription ci liste électorale yi beneen mbir bi ñuy waxtaanee rek euh, mooy cambiste bi euh, cosaano woon foofee ca Yoff nag ñi defoon ñaawteef fi teg nañ leen loxo Boubacar Diallo nag ñeenti nit ñoo ko jàppoon rek ba faat ko foofu ca plage bu Yoff loolu nag waa gendarmerie nationale di ñu xamal ne rek teg nañ loxo ñi nga xam ne ñoo defoon ñaawteef bi ba fas yéene leen yóbbu rek fi nga xamante ne. foofu la mbaxane doone benn ñu wax ci leneen askanu Sénégal jafe-jafe yi am ay euh, jafe-jafe ngeen baal ma rek ci euh, répétition bi li ko waral nag ñu ne gone yi jamono ji amuñu ay repère maanaam ay royuwaay ba tax na rek ñooy sàkku rek ci kilifa yi wala sax ñi gën a féete mag ñu xool doxalin bi ndaxte gone moom mënul leneen lu dul roy ci ñi nga xam ne rek. ñooy ay waajuram wala saxi magam Maymuna Njaay amal ci am jàngatande ci ak uh, Mohamed Sow mu toog ci kuuru école am xalaatam di dem fu sori ndongo gi nga xam ni mi ngi def classe CM2 am na lu bari lu ko soxal bokk na ci ñàkk kaaraange gi nekk ci biir réew mi rawatina askan wi ci seeni jikko lu ci bari sopp ko ndongo bi dem na banaan sax xàmmeetul réewam on remarque qu'il y a li ma gën a jaaxal rek mooy accident yu bari accident yu bari nañu torop torop torop li koy firndeel rek mooy bu ñu jógee ci xew-xew diine yu mel ni màggalu Tuuba ak lu nu mel da ngay gis ci tali bi ñu lim accident yu bari seen lim takku man sax damay dem ba tiit te loolu yëpp amul ay dogal yoo xam ni euh, réew mi ñi nekk ca kaw jël nañ ko ngir euh, bu ñu defee yu nu mel yoo xam ni tayeef la euh, ñu def ay sanctions yu. mat. faire ce qu'ils veulent. ay xeetu doxalin yoo xam ni day delloo réew ginnaaw njàng mi ñu dem ba ñu bëri farataaluñu ko ndongo bi moom nee na dafa am lu ko metti. gisoon na ay élèves yu am presque vingt ans di nekk encore école primaire. Euh, Sehela je leen di gis dañoo ne ni Euh, élèves yu gën a am xaalis seen parents yu gën a am xaalis ñoom ñi ñooy nekk ci école bi en premier après le ñeneen ñi di soog a ñëw te day fekk ñu am ay âge genre vingt ans fekk na aje bu ñu toll noonu mënoon nañ nekk université saafara si bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu mooy delluwaat ginnaaw xoolaat li fi maam yi bàyyi woon ñu jéem ci roy tuuti xale yi dàquñu sax doo sa jabar rey sa jëkkër parce que daf la takkal ñaareel euh, sacrifier rey ay xale pour ay sacrifice pour nekk am xaalis nekk président dem ay def ay ministre rien que pour les affaires di ay affaires politiques après genre yooyu daal c'est pas bon. du ñuy faral di leen dégg wante seeni kàddu lu am solo la. tu tànk yi ñi ngi lekkool wante ñi ngi bàyyi xel bu baax li xew ci seen réew Baymana Ndiaye dañuy desa nekk yenn xeetu ñaawteef yi nga xam ne dinañ ko nemmeeku ci xarala yu yees yi foofee ca ah, diwaanu Saint-Louis imam Abdoulaye ah, Mouhamedoune Abdoulaye Cissé addu jëmale ci li ne mel muy sàkku ci askan wi kenn ku nekk ànd ak yarak ak dal su ko defee rek yenn xeetu ñaawteef yooyu ñu moon ko moytandiku loole nag kàddu yooyu mu ngi ko yëkkati rek gannaaw bi gàmmu gi jeexee bi mu doon taseek euh, ñi nga xam ne ñooy journalistes yi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Diop. xool tamit naka la ñuy mënee bàyyi xel les dangers des réseaux sociaux euh, xale yi ils perdent beaucoup de temps ci réseaux sociaux yi temps bu leen yokkul dara ma jàpp ñu temps yooyu mënoon nañ ko exploiter ci recherche. bu njëkk dañu daan yebal centre culturel ñëpp dem di abonné à la lecture dans les établissements war na am normalement léegi centre yi war na gën a bare xale yi am des heures de recherche am des groupes de travail macha allahu taala am des superviseurs yu leen di contrôler ci seen ay lecture mais ñu wàññi seen jëfandikoo réseaux sociaux yi nga xamante ni la ci ëpp ci ñoom danger la danger la ci wàllu téléphone danger la ci wàllu ci wàllu visuel mais danger la par rapport ak réseaux sociaux yi daal mooy la république publique yaa ngi si mbedd mi rek waaw ku nekk ci mbedd mi nag danga nga war bàyyi sa xel am prudence xam nan ngay doxe xam ñan ngay waxanteel Facebook int euh, bi si des euh, tabaarakallah WhatsApp Twitter Instagram yii la yëpp yaa ngi jël sa vie privée tekk ci diggu tali bi. dañuy des ak mbiru Facebook Instagram WhatsApp ak ki leneen loole nag suñuy ndaw ñun toogal foofu ca diwaanu Ndar jox nañ kàddu gi askan wi kenn ku nekk nga saytu lépp loo xaju rek ci li nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo te yenn saay muy faral di indi nag si du noonu ci loolu nag Ousseynou Diop la ñuy teewlu ci liggéey bi mu ci àndal def andi ceek Habib Sène réseaux sociaux yi di Facebook WhatsApp Instagram wala yeneen yu ni mel jamono jile ñooy lëmbe réew mi mu mel na Sénégal yi rawatina ndaw ñi nañ cay demee dafa doy waar soppeeku am ci xale yi loole nag tax askan wi di ko ñaawlu jàpp ni lu ni mel dafa indi tiitaange ci réew mi. lu nekk moyen de communication la te communication moo di ay nit ñuy ñuy ñuy ay xalaat mais yan xalaat xalaat yi rafet ñun nag dañuy ëppal. moom Sénégal dafa doy waar dafa mel ne dañ ko weccee. waaw parce que léegi nit ñi dañu soppeeku du façon bi nga xam ne c'est extraordinaire parce que nit nga dugg ci vie privée am xamaloo ko di nga wax li nga xam ni jaaduwul ça c'est pas normal. ñeneen ñoom la ñu gis moo di ni lu jëm ci wàllu xale yi léegi seeni comportement yi dafa changé te li ko waral mooy lii di réseaux sociaux yi. leen neex la luy def rek ci réseaux sociaux yi yaa fait n'importe quoi moi je crois qu'il faut les éliminer waaw je crois que c'est mooy mooy mooy loolu il faut prendre des mesures voilà loolu mooy yoon. bu kenn jëw bu kenn soxor. bu kenn xaste te loolu pour nit mën ko def yomb na jàppeel ku nekk sa bopp yéeneel ku nekk li nga yéeneel sa bopp koo gis jox ko cër looy wax na doon dëgg bu ñëpp taxawee ci na laa ma sari xii na yàlla dañu defal su ñu ci bari ci ñoo ñu dajeel seen gis-gis mooy force rek ñu war ko xoolaat organiser waat réseaux sociaux yi ngir ñi nga xamante ñoo ciy def naka sudul noonu ñu mën a jàmmaarloog ñoom euh, yaata saay euh, euh, yi ngay dugg ci xale yi xool lan lañ ci jot a def mais nag euh, état bi euh, waroon nañu mettre ay disposition ay xarala yoo xamante ni dina tax internet ci biir kër yi ñu bëgg ko mën a contrôler. kàddu yi nag benn la lii di réseau sociaux yi dina defar waaye nag la muy yàq mu ëpp ngir boobu loraange ñu bañ ci egg ñu ngay ñaan nguur gi mu jël ci matukaay. ñu wax ci bés bi ñu jagleel nappkat yi rawatina ñi nga xam ne rek ñooy yëngu ci bañ a utiliser xarala yu yees yi loolu nag bokk na ci gaalu locco wala sax ñi nga xam ne rek ñu ngi faral di liggéey ci tefes yi ñu doon màggal bés bi ñu leen jagleel ci loolu nag la ñu sukkandiku ñi féete ca diwaanu eh, Ndar Géej ñooñ nag li ñu bëgg rek mooy nguuru Sénégal saytuwaat lépp lu aju. ci licence yi doxoon diggante réew Sénégal ak Mauritanie ndax nee nañ pare wuñu benn yoon rek ngir dem di yebbi seen ay jën foofee ca diwaanu Mauritanie Cheikh Diop andi ci ak Jafara Ousseynou Diop andi te nekk mool yu bëgg seen liggéey jàpp ko rek ngir développer Sénégal ñoo ngi laa ñaan nga jàppale ñu si licence de pêche yi licence de pêche yi baaxul parce que Mauritanie moom dafa noot Sénégal daf ko daf ko jàppe comme nigo rek benn dof moom loolu la ñu jàppe ñun dañu yaakaar ne Mauritanie moom mooy dof même ñun la jàppe dof ndax man loo at mu jot bu licence yi ñëwee comme commencement bi nii ñu ni euh, septembre la ñu waxoon octobre ñoo ngi si novembre des ba janvier ba février mën naa am sax toute l'année duñ la jox licence bis boo demee ñu wax wax ju bees te ñi nga xam ne ñoo amee licence yi di suñu mbokk yi dañu bëgg bu ngeen demee ba ñëw li ngeen fa jëlee ngeen wax ñu la vérité wax leen ñu dëgg gi bu leen dem ba ñëw làquwaat si roq bi ne ni nañ seet na mu gën yombi ñu waxee kat nit ñi du noonu yéen moomu leen nit ñi dañ leen fi teg bu ñu fi tegee li nga xam ne yaa ko la loo neex def si mais liñ la dénk wala nga bokk ak nit ñi moomu ko dañu bëgg ni yéen ngeen defaat beneen affaire bu toll na lu ngeen jëlee Mauritanie ngeen wax que nit ñi ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk ba léegi xamaguñ fuñu fu ñuy teg suñu tànk si wàllu licence bon Sénégal xëy na sax ñun noonu lañ ko mën waxee mënuñoo am ay jur ay millions si ay betaay nag gëléem xar nekk suñu àll yi di dund kenn contrôlé 1000 francs la ñuy fay ren ba déwén. jërëjëf ci diwaanu Saloum foofee nag ñu ngi waajal bu baax a baax gàmmu gàmmuwaat ci loole nag. waa hôpital El Hadj Ibrahima Niass jël nañ ci ay dogal yu ñu rafetlu bokk na ci rek képp ku fa indi feebar dinañ la faj te doo fay dara rawatina tamit fas nañu yéene taxawu képp koo xamante ne am na fa ay jafe-jafe ñu ngi sàkku tamit ci dawalkatu woto yi ñu def seen kem kàttan bu ko defee ñu moytandiku lépp lu aju ci wàllu accident Ibrahima Diame andi ceek ak Gueye hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack nag jël na dispositif bu mot sekk ci gàmmu gile pour mën a wàllu si en cas d'accident ñi nga xam ne ñoom ñoo amee ay gaañu gaañu waaye nag li ñu mën a jàpp ba nekkee nii de moo di que ne bu dul incident moto jakarta yi amaguñu benn cas de blessé grave bu nga xam ne andi nañ ko fii. Euh, di wax ni gàmmu ren bi dañuy sant yàlla di gënaat di ko sant parce que ba fi ñuy wax yow nii en tout cas signalé guñ ñu accident bu grave. ci oto yi ak pèlerins yi ñëw fii au niveau de l'hôpital am na benn bu fi jotoon am mais je pense que boobu ci Fatick bi la mais fii ti côté bi nii amagum fi signalé gum li ñu fi jot jot ay ay accident wu moto Jakarta la. ginnaaw nag gàmmu bi na Baye day faral di organiser li muy duppee gàmmuwaat moo tax kilifa yi hôpital ne kon dañuy maintenir seen dispositif de secours ba bés ba dellusiwaat. donc moo tax ñun dañuy def suñu dispositif mu jiitu gàmmu gi ñaari fan avant fii ci Kaolack dañuy def li ñuy wax gàmmuwaat ba gàmmuwaat gi ñëw donc ça prend presque dix jours te ci biir dix jours yooyu dañuy mobiliser suñu personnel yépp ñu nekk fi garab yi dañ koy jël indi ko teg ko ak équipement yi ci war yépp ba sorte que ku ñëw en urgence mu liewu ak événement bi dañ lay jël en charge gratuitement doo fay dara bu laajee ñu opérer la am na kit yoo xam ne pare na dañ lay dugal bloc opéré la doo fay dara bu laajee ñu faj la nga dem aussi ñu faj la nga dem. ginnaaw loolu nag la direction hôpital bi fas yéene def li muy duppee bilan général pour xool rek seen dispositif bi ñu taxawal mën a defaale tamit comparaison événement ren bi ak bu daaw ba. ca Kolda foofu nag ñu ngi doon màgg màggal démb journée mondiale des toilettes loolu tax ñu may ñi yëngu ci wàllu santé ñëwaat ci li nga xam ne rek. mën na bàyyi ko doon feebar ci ñi nga xam ne rek ñooy waaye ci àll bi ba tax na rek ñu sàkku ci askan wi ñu def seen kem kattan ngir mën a tabax ak cabinet yoo xam ne rek ku ko soxla mën fa yegg la Diallo ci jàngat. jot ci duus bu ànd ak cet gu mucc ayib doonul lu ñëpp mën a jot rawatina ci dëkku kaw gi. c'est ay toilettes traditionnelles da ngay gas benn pax bu deux mètres indi ay bant nga te ci au bout de deux ans affaire boobu daanu nga recommencer mais en plus de cela xeet bu mu doon génn xeet bu doon génn ci toilette yi daaw na indi ay maladies. c'est-à-dire juste des trous qu'on a mis en place et avec des bâtons et c'est pas sûr et les gens peuvent tomber dessus et les les mouches peuvent transmettre certaines maladies les enfants aussi n'ont pas accès à ces ces latrines là. ngir wàññi yooyee jafe-jafe World Vision mooy samp lu ëpp ñeenti junniy douze ci téeméer ak juróom fukki dëkk kaw yu diwaanu Kolda. tey jii nii World Vision projet bi muy déroulé c'est-à-dire. koom pour mu jëm kanam il faut que nit ñi wër te pour nit ñi wër il faut moo am un bon assainissement te booy wax ci problème assainissement na nga ci jiital euh, problème mu bërëb suturukaay yi parce que bërëb suturukaay yooyu saa boo ko defee boo ko amulee nga koy def ci àll bi yow da ngay ne da ngay sànni mbir dañ kaane la te day dellu siyaat si sa biir kër parce que weñ yi ñoo fay dem di fay tab ñëwaat ci si sunu ndox mi sunu ñam yi. mbirum xeex biir buy daw te mu bokk ci luy gën a faat gone yi fii ci Kolda dafa war a doon luy itteel bépp partenaire au développement. ñu Abdoulaye Diallo ñu del suite euh, fii ci Ndakaaru wax ci ONG bi di Lead Africa francophone doon liggéey fii ci Sénégal nag nguuru Sénégal jëloon ci fan yee ñu weesu dogal ak takkal bépp activité am fii ci réew mi. loole nag bu fekkente nañu feete ci kuje gi euh, comme Assane mu ngi ñaawlu bi li dogal. kii di Zahra Iyane Thiam moom gis na ne dafa bokk rek ci li nga xam ne mooy matuwaay nguuru Sénégal jël ngir saytu bu baax a baax liggéey ONG yi fii ci suñu réew Cheikh Diop ànd Jafara Ba nangu bi nga xam ne daal nañ koy nangu agrément bu ONG Ligue Africa daal di koy ay itam bépp activité boo xamante nii rek mi ngi koy wëyal fii ci tundu Sénégal loolee nekk ab dogal bu ministère de l'intérieur lii lee daal di indi ay lënt-lënt ci xelu ñi nga xam ne ñoom ñoo fiite ci ko Assane Ba bu parti démocratique sénégalais di ñaawul bu baax lu ni mel. dogal googu duñ ko tuddee ci forfaiture ci tubaab maanaam lu ñaaw a ñaaw la lu ñu ñaawlu la lu ñu xeex la lu ñuy xeex la lu ñu wax ni nañ ko nañ ko dindi. mouvance présidentielle bi di xam ne loole souveraineté la ak itam daal sàmm kaaraange réew mi ndax dëkk bu nekk dafa am li nga xam ne moom moo di ay sartam te loole nguur gi moom moo ci war a xëpp ay gëtam. jaadu na njiitu réew mi nga xam ne constitution bi moo ko ne yow euh, bokk na ci nga xam ne da nga ko war a saytu sàmm ko mooy euh, lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu yoon bu nu gisee lu ni mel loolu ñu xool ko bu baax a baax ndax état aussi loolu la. lii lee nag daal di tax ab laaj daal di samp moo di lii lee ndax du foqati ak ak yelleefa bu doomu aadama yi fii dund. démocratie dafa dellu ginnaaw. même boo dee président la république yoon dafa tegu sa kaw te moom moo waatoon ni day dogal dëgg lu yoon maye daf koy joxe waaye moom tey moo jël yoon xañ ko ñi nga xam te ñu ko war a jëfe àq ak yelleefu doomu aadama kenn mënu ko foqati ci senegal ñun ñëpp kenn ku ne dafa am bëgg-bëgg am nu mu ko bëgg doxalee am nu mu ko bëgg dundee loolu nag bu fekkee ne dañ ko def maanaam. ku mën sa moroom rekk walla loo neex waaye def du sotti moo tax règle yi am moo tax état bi nekk fi pour saytu. bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi nga xam ne rekk ñoom ñooy yëngu ci langue politique bi ak itam société civile ñi ñuy xam ne ne li tax nguur bu Sénégal daal di dogal lu ni mel moom moo di dafa bëgg wàññi bu baax li nga xam ne moom moo di kàddu citoyen yi. Diop ñu wax ci mbiru njàng meek njàngale mi ñi nga xam ne dama amoon yéene dem réew France wayal seen njàng moom foofu ñu yokk tuuti. ci ay koppar ndaxte foo doon dugal euh, lu toll ci euh, ñaar fukki junni ak lay tegal ngir mën a bindu ci licence léegi moom million bi tegal na master bi tamit léegi ñaari million la ak lu tegal noonu nag euh, ndongo yi ne dis na trop ci seen gafaka bi tax na rek ñuy sàkku ci nguuru Sénégal mu amal ay waxtaan ak réew France bu ko defee rek dogal boobu ñu mën ci soppi dara ay sa Gueye ba andi ci liggéey bi ak Gervais Yaw li ñuy yokk ci inscription bi lee pour étudiants sénégalais yi nekk ci réewum France diis na ci xelum yenn étudiants sénégalais ñenn ñi sax am nañ yaakaar ne li waral li ni mel mooy wàññi étudiants yi nekk ci France. je dirais que c'est c'est un moyen de nous freiner c'est un moyen de parce que. bëgg nañ dem lool ci réew yi tugal rawatina ca France daal di rek jàngi waaye gis nañ li nga xam ne moom moo di frais d'inscription yi. dañ ko daal di yokk loolee nag wu ñu euh, vraiment gis naa ni euh, dañu rek bëgg daal di téye. personnellement moi ça ça m'arrange pas ça m'arrange pas vraiment. lundi bi passé euh, le premier ministre dafa jël dogal nga xam ni dafa bëgg ki yokk les fins d'inscription en France loolu tamit kii du ñu arrangé ñi ñi nga xam ni ñu ngi fii Sénégal aussi. suñu suñu doole demewul noonu ko étudiant bi bëgg yeggali njàngam ca France métit lu na li ni mel moom nag xamal nañu dogal boobule néew doole yi lay gën a sonal. loolu aussi du ñu arrangé ñi nga xam ni euh, ñu ngi fii Sénégal aussi dañu. dañu xaw pauvre quoi loolu duñu kii duñu arrange ñaax na tamit état bu France mu ut saafara ci problème boobule ngir étudiants sénégalais yu néew doole yi mën a dem jànge seen réew ñu wax ci mbiru cosaan ak aada alin Badara Thiam ñu gën ko xam ci turu Akon di rappeur bu ñu ràññee foofee ca États-Unis ak itam fii ci senegal kooke nag mu ngi ci réewam fii ci euh, Ndakaaru jamono ji mu ne nag li waral euh, tànk boobu mooy dafa bëgg delloo njukkal way juróom bu góor koo xam ne rek def na kem kàttan ngir gunge ko ci carrière musicale am mu fas yéene àndal ci ci réew mi nag ay xumbite yu rey ngir euh, jaajëfal ko ñu tawlu ko ci micro Aïssatou Paye yee damay sargal sama papa am le quinze King Fahad Palace après le 16 dañuy dema euh, Lacrosse um, euh, euh, wonees um, daara ji ba mu ba mu nekk foofu bu mu am depuis vingt cinq ans mais du ma ko bëggoon sargal parce que sama sama papa la te lu ma lu may def lépp moom moom ci moom lay jógee moom ma jàngal moo nekkoon foofu di ma supporter te moom ma moo ma quoi. pour ma nekk ku may nekk dama bëggoon moom bu fekkee man ma koy sargal xam nga temps yu bëri da ngay kenn xamul suba lu muy indi te sama papa moom dama bëggoon moom mu xam dëggantaan nu mu koy apprécier quoi. jëmbekat la woon te dafa demoon Amérique ah, pour suñ ko foofu bu baax ak Catherine Dunham ak Alvin Ailey ak James Brown a World Saxophone Quartet te indi na artistes yu bëri Sénégal. Euh, yóbbu leen Amérique tamit. d'accord euh, kooku nekkoon Alioune Badara ñu gën ko xam ci turu Eton mbokk yi fi la ñuy yemale xibaaru marax yi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safoo bi ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew tënkal leen xibaar yi ci nasaraan ci rëgg